Wani, kamu udah tak kena kok. Fambura tak na ko Fambura tak na ko Fambura tak na ko Fambura tak na ko Fambura mbot na ko Fambura dan na ko Fambura dan Fambura dan Fambura en final Fambura en final General revanche la ay jël na ko daanoon juróom jeex la ko revanche la ndeysaan ngañ seen général bu Malika revanche ngañ seen général bu Malika ngañ seen général bu Malika ngañ seen moo daan ordinateur ndeysaan général Malika ngañ jël na tànk ba ngañ jël na tànk général Malika ngañ jël na tànk général Malika ba ngañ seen jël na tànk ba ngañ seen jël na tànk ba ngañ seen jël na tànk général Malika ba tànk ba daa dis ngañ seen ngañ seen jël na tànk ba bàyyi na ko tànk ba rëcc na ñu ngay bële lu rëy ndeysaan ngañ seen ngañ seen mawka andoona yee o xobbi'an no saate fe ancien bouleward ke a cooxno leetar to ɓisiido leetaraaga ngoma jiite in fadaam deno ɓisiidu kum feeke andi ceem xan leetar a ɗax to xaali ten xaɗi sa taku oxna a ngara andinin pour